Fatou yan urgence lan moy tang tang li nga xamanteni tay ji Adama baro ci la wara ci la wara a sukkandiku ci liggéey bu ganna bu toge ba pare. waaw fu mu nekk nii moom bu toge ba pare rek affaire yi euh, prison bi parce que nit ñu bari ñu fa ño xam ne ñoom dara. Hmm. ñu ngi len fa japp ñaata at ñu ngi tok fofu affaire yi démocratie tamit bu nañ nit ñi mëna free. Hmm. ñi wax comme Sénégal li fa am. ku nekk hmm. lu ñëw sa xel lo bugg wax nga génn nga wax ko. Euh, media bi tamit freedom of the press lolu tamit nekk na lo xam ne bugg media bi tamit. Mm. nit ñi tam ñëw nekk benn Yaya Jammeh daf ñu divide. Mm. ñaata at mu su demee si soose yi ne leen olof yi bugguñ leen. Mm. su demee si Gambie ni ne leen sénégalais yi bugguñ leen. su demee si kii ne kii buggu la. même ñu si bi sax daf la doon oo ne la gis nga protocole bii nga ne ko la oytu ko de kii dafa mun a fel. ñëpp la jaxase. comme nekk nii Adama nag am na liggéey boobu pour mun a indi ñëpp tugeeta. ñun tam media bi ñu ngi try. yu noo joolaa yaa wax ne soose yi bugguñu ñu leen ngi wax ñi kenn bugguñu loolu yëpp Yaya Jammeh ko créé. musul soo yooyu yëpp nekk na area yoo xam ne Barrow war na see liggéey suñu économie bi moom dafa dee moom completely mm-hmm. parce que benn nit rek mooy bi mooy Yaya Jammeh soo boobu tamit nekk na loo xam ne foog mu am ci ndimbal parce que dara desu fan Gambie ku ko xool nga xaalis amu fa mm-hmm. benn xaalis amu fa